di di nuyu Gris moom vraiment dama ko respecté parce que dafa am respect ci nit bi ma ñëwee léegi dafa jóg taxaw ñëw nuyu ma waaw wuute naag magam magam nag am na fu ma jaar ak moom wóorkat la waaw moom ku am respect ci nit la man yaayam ci boppam lu tax ma respecté leen yaayam xam naa ni su ma bëree kurul faas man lay faral parce que Gris Bordeaux seen kër yëpp maa leen daan jaay ci leen waaw kon xam loolu lu démb lu yàgg la waaw mais nag làmb ji du yomb daf maa jaral daf ma jaral lu ne jële su may xale da ko tëgg mais jëlewuma ko xaalis waaw mais dama ko jëlee ngir sama place fi ma nekkoon ma ñëwaat fa waaw moo tax daal du yomb waaw du yomb